Euh, ma leen di nuyu yéen ñëpp di leen sargal di leen wax ne sama xol sedd na fu sedd di yem ndax euh, kuy sonn ci xale mu màgg reconnaître ko moo tax ngay sonn ci moom waaye bu doon buñ sonnee ci xale bu ñu màggee sànni coono ba rek kon kenn du sawar sonn ci xale yéen nag yàlla dafa def euh, promotion bi nga xam ne trois sixième C ba troisième C dafa am lu mu def ci man Lo xamne duma ko fàtte ila yomi din déjà sen cadeau bobu rek c'est une marque bo xamne fuma fu dama koy dama koy fàttaliku di netali da dama ñew ngeen bett ma mané indu yow xalé yi waroon nañ mako wax ma sol yéré itam xol leen li ma sol ma ngi sol li ma sol ñew di jangal si ngeen may jox cadeau ma indu reetaan ma ngeen ne ma keroog jaar sax takkuma ko jour bobu man gis nga jaar sax takkuma jaar dama dama xawta di fat sama jaar donc promotion la bo xamne da ngeen a jóg rek aw ci yoonu réussite macha allah maa ngi ñaan ci doole Cheikhul Khadim ma yaakaar yal fa ngeen jëm yal na ngeen fa yegg ci barke Seydina Mohamed bu ngeen fa eggee yal nañ ko jariñoo ak seeni waajur ak seen waat ci barke Cheikhul Khadim maa ngi ñaan ànd bii. yan na ko yàlla barkeelal bu dee ku la jàngal ñaanal la yàlla nangu ñaan nga yan nañu yàlla rus ci seen groupe bi ba li ngeen séntu yal na leen ko yàlla defal man daal sama xol sedd na ndax euh, li ñuy wax joxe ay millions lii moo ma gënal investir sur l'humain xam nga investir ci nit mu réussir dafa sedd xol te li may wax ci jàngalekat dafa am ñu mënta xam ci ñun jàngalekat élève réussir moo ëpp tiitar ci moom doomam réussir parce que doom bu réussir sa doom la mais ëllëg bu réussir sa benen dom la bu réussir bu yok sa njabot li am tay aw ci njabot te bu ma samay dom li ngeen ma defal moma ma luma samay dom daf di lo des dafa am signification et puis yalla def tâche d'huile ba bu prof yor ko ba mu egg fa mu bëgg a egg yalla na ko gannaawam wat gannaaw sargal ndax am nee naa leen ñaar dërëm yu la sa élève yëkkati jox la ko moo la gënal milliard boo xam ne yaa ko liggéey wala sa njaboota la ko jox may sant bu baax a baax a baax a baax ndax c'est pas évident que nit jàngale ay élève am fàttaliku ko ba woo ko di ko sargal c'est pas évident ah xëy na nag loolu lañ doon wut moo tax dañ ko doon wut waaye nag mën nga ko ba sonn yàlla du la ko may wut naa ko xëy na yàlla may na ma ko ci ma koy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax sant yàlla sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen sant yéen ñii tamit nag ndax mënoon ngeen kenn mënoon na koo xalaat ñu ci des bañ waaye nag fu ma mës a toll ci sama liggéey rek yàlla ma élève jéppi loolu laa mas di ñaan ba ma commencé bisimilahi rahmaani rahim ba fi ma terminé yàlla ma élève jéppi laa mas di ñaan yàlla ma élève jéppi parce que élève seqoog moom dara lu mu lay jéppee élève bu ma mës a am rek doom laa la def tey séentu ëllëg yàlla ma dajeew am gàcce giñ naa ko jëmi seexul xaddim yi gëw ma ne am naa élève may dajeel am gàcce yéen nag da ngeen cee raw da ngeen cee raw parce que firnde baa ngi nii li yaakaar naa ça ne court pas les rues court pas les du ñëpp a ko am alors may ñaanaat tàllalaat samay loxo laaw naa di ko ñaan yal na seen ànd bi sax yal na seen ànd bi yàgg li ngeen seen seen ànd bi yal na ngeen ko ci am ci barke yonent ba dara jaay cheikhul xaddim maa ngi ñaan yàlla na ngeen toog ba seeni morom di leen dégg ci lu baax ca kaw ca kanam alhamdulilahi rabbil alamin sant na yàlla sant yonent ba sant len jërë gene jëf madame Ndiaye Khady professeur de maths à la retraite ancien prof de mes élèves qui sont là derrière moi émotion sànq dama leen ne je vais essayer de de, de surmonter cette émotion là moo tax ma wax sinon du ma wax parce que je suis totalement ému. Euh, lii dafa jafe te dafa neex parce que liggéey ba noppi la nga doon liggéey jeex ñu mën laa fàtte parce que la ma doon def sama devoir laa doon def rek jàngale ñu fay ma ma bëgg leen nag te yàlla tax loolu sama xol la mais mënoon na bañ démé ni quand même ñu fàttaliku ko ba ñëw dima sargal dima défal dar lu mu manti doon joxe ay cadeau ak dima défal ay témoignages mënoon na ñàkk. parce que am ngeen yenen lu ngeen def am ngeen yeneen lu ngeen def te xeyna na rek lu ngeen promotion yi ma sa jangal mais c'est une promotion qui m'a marqué voilà. wa tay ñoom ginnaaw bi ñu defee ak ñi nga gisee ni ñu andé fan ndigal nga leen di jox euh ginnaaw bi ma sant yàlla daal parce que li aussi. ay xale ànd ànd bu mel ni jigéen ñi nekk te wóor na ma ne jigéen ñi am nañu am ay borom kër borom kër yooyu libéré leen ñu ñëw ci yéen ngeen ànd ak ñoom yéen ñi am ngeen ay soxna soxna yi libéré leen ngeen ànd ak ñoom am na loo xam ne yàlla la du yéen du ñoom yàlla la yàlla mi ko def nag na ngeen góor ba bu leen ko war na ngeen góorgóorlu ba bu kenn wax loo xam ne bu ko moroomam déggee mu am ci gàcce na ngeen mel na ngeen meloon ba ngeen nekkee sixième ba troisième na ngeen ànde woon bokk ndey bokk baay incident mun a ñàkk mais bu mu doon jamais incident bu indi gàcce. na doon incident boo xam ne incident technique boo xam ne bu amee ñëpp dañ ciy wax mu jeex. mais pas incident boo xam ne borom day génn borom am ci gàcce parce que WhatsApp par léegi mi ngi def lu nekk ci dëkk bi. bii nag na doon exception ci whatsapp yi nga xam ne ni de whatsapp ordinaire la na doon whatsapp boo xam ne lu baax a ciy génn lu baa a ciy am ngeen di ko wax di ko diisoo ku ci am problème sa morom jàpp ci ku ci am problème même yéen ñii di ay góor ak ñii di ay jigéen ku ci am problème de menace sax say morom mën nañ ci jàpp ba nga dellu si waat à la normale ñaan naa yàlla ñaan naa yàlla loolu bu am waaye nag lu ti am quelque soit la dimension du problème rek na ngeen fexe ba waxtaane ko seen biir mu yem seen biir waaye bu yàlla bu ko tas waaw na ngeen góorgóorlu daal ba bu ko parce que an léegi dafa jafe an dafa jafe mais yéen seen niveau xëy na egg ngeen foo xam ne du ngeen séparé wu ci caaxaan ni ngeen ande kat du tiaxar donc na ngeen fexe ba ande bi na deuguer na gëna deuguer def ku ci julli na nga musul ci shaytané voilà waaw. maanaam ban ban message la ngay jox élève yi jàng ni actuellement nga xamni élève yi xana roy ci ancienne promotion yi rek ndax xeyna yar day gën di jafe dama wax sama xale yi ne len dama yërëm légui parents léegi parce que xale yi ils deviennent de plus en plus difficile à éduquer. dañoo xaw a jafe léegi yéen ñii xale yi sama élèves yi ñàkkuñu ci am ay doom yu dëgër bopp yoo xam ne koo ci ne bàyyil du bàyyi koo ci ne jàppal du jàpp koo ci ne bàyyi la ko ne bàyyi balaa toog dina ko laal donc ñu ñu jaqa naqare yar lañu yéen modèle ngeen woon parce que bu njëkk xale dafa amoon kersa élève da ngay wax ak moom murus bàyyi ñu boole la ak moom yaayam sax am jaaxle ci moom ñëw boole la ak moom murus bàyyi léegi kenn ñëwetu la yedd kenn alors bu ñu dellu woon gannaaw nag xool ci seen mag yi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te réussite parce que dañ ne euh, la réussite sa trouve au bout de l'effort nit ku ku am yar am teggin jàng rek di nga réussir bu neexee yàlla donc xale yi réussir ay modèle lañu pour ñi nga xam ne ñu ngi ci banc nañu xool lu ñu def ba egg fi ñu egg ñu jéem fa aw yar nag ci la bokk yar ci la bokk jàng ci la bokk mais kenn mun ta jàng te yaruwoo kenn mënut ta yaru aussi euh, sa jàng nul ku yaru sa jàng dina baax ku jàng di nga yaru boole ci du ngeen ay laar mosu leen a réew aussi donc la la la réussite est là macha allah yan na ni yàlla lafal cat ci barke Seydina Mohamed yàlla dafa leen cat mais seen rakk daal nañu xool ci yéen ku ci nekk daal ña nga nekkal des fois del woote waxtaan ak ñoom woo leen yedd leen bu ñu dee say rakk bu ñu dee rakk jàmbur. l'essentiel mooy nañu bokk ak yow koñ rek muy xale yu jigéen yi dama leen daan yedd ba di leen yedd ci yeneen domaine yoo xam ne extra scolaire la. dama ji daan wax ak ñoom boo leen sama classe des fois wax les garçons sortez. Mm-hmm. les filles en classe. j'ai j'ai besoin de vous je veux vous parler Une des classe Mais wax ak ñoom domaine boo xam ne mën nañu madame Ndiaye de moo sob lu ci yoonam mais elle m'écoutait avec beaucoup d'intérêt yaakaar naa am na lu mu leen jariñ loolu nag la xale amatul léegi nañ ñaan yàlla nag xale yàlla delloo si leen ba ni xale meloon bu njëkk xale melaat ko léegi mais yombatul ñoo ngi ñaan daal ñu servir de modèle xale yi nga xam ne ñoo réussir daal seen seen entourage jël leen comme modèle comme référence voilà. voilà donc que j'ai reçu ces cadeaux-là. Alors, ces cadeaux viennent d'où Viennent de mes anciens élèves. Ce n'est pas évident d'être presque en fin de carrière parce que j'ai terminé ma carrière et de recevoir des cadeaux d'anciens élèves. D'anciens élèves parce que vous êtes des garçons et des filles. Donc je suis très très très émue. Alors euh, si je n'ai pas fait d'effort, je n'aurais pas parlé. Pourquoi Parce que j'ai les larmes au bout des yeux. Donc euh, je pleure facilement. Mais aujourd'hui, j'ai fait l'effort de ne pas verser de larmes. Mais je suis tout à fait émue. Vraiment très contente aussi de ce cadeau-là. Ça vaut des milliards. Ce cadeau me va droit au cœur. J'en suis satisfaite. Et je vous souhaite une longue vie, toute une réussite. Continuez à réussir sans arrêt. Je vous le souhaite vivement en tant qu'ancien professeur, en tant que sérine, comme on le dit. Voilà. Et quel conseil maintenant à la famille de l'éducation sénégalaise Peut-être beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de cette famille enseignante parce que les élèves ne sont plus comme vous. Ils ne sont plus faciles à éduquer. L'intelligence avec les médias, les élèves sont devenus paresseux, des paresseux intellectuels, parce que tout se fait avec l'ordinateur, tout se fait avec la machine. Maintenant, les mémoires ne travaillent plus. Ce qui fait que l'intelligence est une intelligence scientifique, intelligence artificielle. Alors ça, vraiment, c'est un, un, un point noir qu'il faut enlever. Alors euh, là, il faudrait que peut-être les élèves prennent comme référence des anciens comme vous. Dans chaque carrière, il y a au moins un élève qui a réussi, comment il a fait pour réussir, quelle a été son éducation, quelle a été sa filière, quelles, ont été, quelles ont été. Alors il faut voir ces élèves-là et en faire des références. Voilà les conseils que je donne aux, élèves qui sont actuellement sur les bancs. Voilà. voilà. Je me nomme Astou Diallo ancien, élève du collège CM euh, Diamaguène. Hum, Tay nak euh, ñu sargal une de nos professeurs qui se nommait qui se nomme Madame Diaye Hadidjie. Euh, elle était notre prof de mathématiques Tay nous mu en classe de sixième de troisième mu Nous suñu yaay à l'école nekkoon suñu xarit nekkoon suñu confidente mën naa ne professeurs yi ñu amul yëpp suñu xarit la ñu woon parce que on était brillant déggal leen respecté leen euh, bi ñu demee ba yàlla def tey ku ne manal sa bopp macha allah parce que groupe bi bari nañ lool promo seen jàmm gën bi bari nañ mënuma lim ñëpp ndaxte dañu créer benn groupe whatsapp ñun nag bi ñu créer groupe whatsapp li ñu ci xalaat mooy dem ba tey yore réew mi suñu loxo li ñu ci xalaat mooy parce que nag on a des ingénieurs on a des inspecteurs euh, impôts et domaine euh, cadre bu ne mu ngi ci groupe bi on a des personalité macha allah li ñuy wax ni élève bu jàngee tekki ñun tekki nañu ci ci réew mi dara bi ñu demee ba ñun ñëpp tamit gëj a gisante. ñenn ci ñun di gisante di déggante ñu def benn groupe whatsapp groupe whatsapp boobu tey moo jël lii moo jur lii parce que bii mooy suñu troisième rencontre ñuy gën di avancer te avancement bi nekkul rek dañuy créer groupe bi pour sargal professeurs yi dañu bëgg tey réew mi ñu def fi loo xam ne dañuy gis di ñu dégg def fi loo xam ne élèves yi ñëw tey dinañ mën a liggéey ci suñuy entreprise bopp tey réew mi en mai di ci liggéey di ci wax lu baax di ñaax xale yi essayer de de de faire quelque chose boo xam ni vraiment kuy élève dina la marqué ci sa àdduna euh, moo taxoon tey ñu doon sargal madame Ndiaye di ko jox cadeau di ko jox wàccuwaayam parce que nag elle la mérite vraiment ñuy ñaax aussi élèves yi ñu gën a jox cër professeurs yi Notre élève nag bu amul yar respecté wul ay professeur je pense que nous devons avancer. te sante nañu yàlla ba ñu avancé parce que yoon wi ñu suñuy tek teg dañ ci teg ak suñu prof ba tey jii ñu mën fàttaliku di leen sargal te bii première édition bi la keneen koo xamante ni professeur nga woon nekkoon seen jàmm gën ñu ngi fës yéene di leen woo kenn par kenn di leen sargal parce que ñoom yaakaar naa ni ay modèle lañ à Thiès école la boo xam ne du ko fàtte benn yoon parce que encadré nañu yar nañu ñu jàngal nañu pratiquement matière ya fa amoon yépp la ñu bëggoon parce que on avait de bons professeurs ñuy gërëm di sant aussi suñu principal Assane Ndiaye moo fa nekkoon di gërëm passi la ñoom monsieur Diop monsieur Kébé ah kan ñun ñëpp fàttewuñu leen ah y avait deux kan français anglais ñun ñëpp fàttewuñ ci kenn ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu nag wéral ñu dëgëral cër yi yàggal ñu fi ba képp ku nekkoon suñu professeur ñu sargal la ci kàttanu di ñaan aussi Sénégal Nous def créer des ay entreprise créer fi ay parce que si nous jàng dañu yaakaar ni yóbbu suñu réew ëllëg ca kanam moo taxoon ñu toogoon ci banque am nañ ay opératrice am nañ opérateur bon leen leen kilifa a xalaat ni yor groupe bi waaw ñu ngi nekk di waxtaan ci sunu biir nan lañu ñu mën a créer ay entreprise dans dans dans dans ce pays là jéem ko gérer sunu bopp ñu xam ni kat promo bii nga xamante ni seen njàmm ngeen la jóge woon def na dara ci Sénégal et dans le monde entier maa ngi sant yàlla di gërëm samay mbokk di gërëm samay wéju di gërëm promo bi yépp nag di jël ngërëm li di ko teg ci loxo Serigne Touba mu tas ko ci groupe bi yëpp macha allah alhamdulilah rabbi alamin Bonsoir, donc c'est Moussa Ba, euh, membre du groupe euh, Wassem ici euh, à Thiès. Et vraiment, c'est avec un immense plaisir que je, donc, vous adresse la parole pour vous parler au nom du groupe. du groupe Wassem qui est né en 2016, depuis 2016. qui sont, un groupe qui est constitué d'anciens camarades, donc d'anciens camarades de classe depuis 2016 et nous sommes donc à notre troisième rencontre. C'est un cadre d'échange euh, c'est une famille et nous sommes toujours heureux de nous retrouver. Euh, et c'est toujours donc des retrouvailles donc, entre les anciens camarades de classe. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du groupe Voilà, concrètement, euh, c'est un groupe qui est constitué donc, de, comme de 2016, qui a eu à faire donc, des activités, des activités d'échange, un cadre d'échange donc, dans plusieurs thèmes par exemple, parce que nous sommes devenus maintenant responsables. c'est un groupe homogène en qualité mais chacun est responsable dans son, secteur. Il y a des enseignants, il y a des ingénieurs et il y a pas mal donc de, qui sont qualifiés dans un secteur. Et à chaque fois, on organise des thèmes donc, euh, avec invité de la semaine et on échange par rapport à, son métier, à son domaine euh, de compétences. Sur le plan social sur le plan social, on a eu donc euh, à insérer donc des cotisations mensuelles qu'on fait. Et il y a une partie qui va dans, un fonds, comment fonds de caisse qu'on appelle la caisse sociale qui est euh, là établi pour venir parfois en aide euh, euh, des, membres qui sont, dans le besoin et on mène donc des activités sociales par rapport à, ce fonds-là, fonds de caisse. Récemment, il y a eu une activité, on a un livre au niveau du CFD Amogan. Mhm. Quel a été la quel a été le niveau d'engagement du groupe Voilà, donc un engagement très fort. On a eu à collecter des, des œuvres, des œuvres au programme, donc de la quatrième à la troisième. Et c'est un don qu'on a fait donc au niveau donc de nos frères et sœurs qui sont au collège. Le collège qui nous a formés, là où, euh, nous sommes sortis, euh, et qui a participé donc à notre formation euh, en, une grande partie. Donc là, c'est un geste qu'on salue et Inch'Allah qu'on va renouveler. Parce que aussi, nous rendons la monnaie. C'est là où on a formé, on est devenu quelqu'un donc à une grande partie donc grâce au CMDA et à nos profs qui sont là-bas. Et donc, par, par la même occasion, je, profite de cette occasion pour féliciter Madame Ndiaye qui est, qui de passage, qui fait partie donc une de nos profs euh, mathématiques qui a eu à nous former. Mhm. Alors, il y a d'autres groupes intermédiaires qui existent aujourd'hui, mhm. qui sont plus anciens que nous, bien qui sont moins anciens que nous. Alors, quelle est l'invitation, quel est le message que vous leur envoyez Voilà, je leur lance un vibrant appel, un appel solennel, euh, que les groupes-là sont, sont, très intéressants parce que c'est des groupes donc, de, de retrouvailles, d'échanges, donc d'amitié, et pourquoi pas même des, groupes donc de euh, quelque part même entre camarades et donc euh, qui sont des groupes donc intéressants donc pour moi à sauvegarder parce que là euh, du moment où on n'est plus donc dans le même milieu le temps nous est parfois imparti mais ce groupe là nous sert donc de cadre d'échange et donc sociale, sociale de bonnes actions. Donc pour moi, ces groupes c'est des groupes à pérenniser et à sauvegarder. Vraiment, on ne le dira pas assez. Donc on le salue vraiment, machallah mashallah alors Moussa ci wolof. nga mhm. organiser ay rencontre yu mel nii. Mhm. alors fan fan moo leen inspiré ba ngeen mën a agsi ngeen agsi voilà mooy suñu déggoo ak suñu bëggante hein j'allais dire parce que dañu xamanté lu yagg am ay liens donc de de de fraternité donc d'amicale de cordialité donc ñu ñu xamante bëggante ñu yagg bok classe de la 6e donc à la 3e mu nekk loo xam dañoo bëgg bok ay bëgg-bëgg même su fekkee bokkuñu fu ñu liggéey mais ñu xamante gën a dëgëral suñu diggante. motax ñu defar groupe bi te vraiment amuñu ci benn retour parce que am nañ daf ñu def ay action dimbal suñu rak yi nekk seen jàmm ga ak suñu biir ñun ku am xew jàmm ak xew ak xew naqar yëpp ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay jàppale donc pour man groupe bu am solo la te lu ñu war a mën a gën a saxal la mu jëm kanam yan activité ngeen def ci biir waa ay activité jàppalante ak ay activité maanaam di weccante ay xalaat ci suñu wàllu yëngu-yëngu ndax ci groupe bi am na ay jàngalekat am na ay ñu nekk ci yeneen métier am na ay euh, ñuy liggéey ci wàllu euh, technologie ak yeneen ak yeneen ñu ci weccoo xalaat chaque semaine donc mu nekk loo xam ne luy dëgëral donc groupe bi la ak ay wàllu ndimbalante donc euh, ak dimbal suñu wàllu rakk yi mooy li ma wax sànq leen jox ay livre ay jumtukaay yu ñu jàngale suñu prof yi ñu xam a jàngal te mënuñu leen a fay di leen dellu njëkkal di leen décerner ay maanaam ay diplôme ak noonu mais groupe bu bu am solo la boo xam ne vraiment war nañ ko mën a gën a sauvegarder mu jëm kanam di ñaan neen ñi nga xam ne ñu ngi ci groupe bi nekk groupe yoo xam ne yu am njëriñ la bu bay nekk groupe yoo xam ne day Euh, jibu tay ëlëk mu tej donc suñu groupe bi wax dëgg yàlla am na presque ñaari at te ñuy ñaan yàlla mu jëm kanam parce que lu am solo lañ ci def. un un waaw taxawaay bu mat sëkk na parce que aussi ñun euh, jaar nañ seen jaamagal jàng ba tey ñu nekk kenn donc pour man war nañ mën a delloo buum ca mboy boy ga ñu dagalee kenn ku nekk ñu ne ku nekk na benn wala ba ñaari livre yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy soxloo di di ko jàngee maanaam ci classe yu diggu doom yi mooy CM ci CM yi collège yi ku nekk def nga ci sa sa wàll collecté nañ ci ay livres ñii ay œuvre au programme di ko dimbalee suñu rakk yi nga xam ne jumtukaay du mos a doy mais ñu ñu nañ def geste boo ne c'est c'est solennel ñu delloo njukkal suñu CM Diamaguène suñu rakk yi fa nekk parce que di ëllëg aussi dinañ nekk ñeneen donc ñu def geste boobu nga xam ne xeeb nañ ko mais dinañ ko jëmale kanam ba pare encore une fois di di di di delloo njukkal suñu suñu jàngalekat yi nga xam ne mënuñu leen a fay macha allah ndax lu bari si ñun ñuy euh, defaat métier boobu di jàngale xam-xam di ko jëmale si ñaan comme ñu naan ku xam da ngay xamale donc comme ni koy wax ci alquran euh, euh, ku ku xayru ku man sa allah alamal quran wa allamahu ki gën seen moo ci xam di xamale donc jàngale lu am solo la te yaakaar naa loolu moo sas bi mu groupe boo xam ni bu am solo la weccatee xalaat lu ñu jëmale kanam Mhm. di waaw di leen ñaan ñu gën a saxal loolu rek mu nekk groupe yoo xam ne vraiment yu am njëriñ la mu bay nekk groupe yu comme li ma ko waxee sànq di tas ëllëg mu nga xam ne comme nit ñi amatul jot groupe whatsapp yi yu xew la mais mën nañ ko def di ko maanaam euh, di ko def positivement di ci weccoo ay xalaat mu nekk exemple ci ñeneen en tout cas ñu de ñi ngi woo ñi nga xam ne yéen ñi am groupe mu nekk groupe yoo xam ne ay échanger ci seen wàllu xam-xam ci seen wàllu métier ba pare delloo njukkal ñeneen formé ndax kenn mënu leen a fay donc waaw pour tëj euh, di leen xamal ni euh, ku jàngu rek pour man ñàkk nga jàng ku ko deful mun nañu jox da nekk jaahil te soo jàngu doo mën a nekk keneen suñu Sénégal instant bi xam nañu jàng bi doy na waar mais nag ñu ngi ñaan ñëpp ñu boolante jàppante joxante loxo moo xam gouvernement moo xam acteurs yi moo xam élèves yi ñu xam ne formation njàng lu am solo la parce que c'est la base ku jàngul doo mën a tari donc ñu ñaan ñëpp ñu jàppaat suñu école sénégalaise bi di nga xam ne formé na ay bopp président Léopold Sédar Senghor ba tey ba am na fa ay kangam donc ñu leen ñaan ñu japp sauver école bi sauver suñu xalé yi ba ëlëk ñu mëna a nekk kenn ñu former donc ay futurs citoyens donc yu mëna taxaw Sénégal mu jëm kanam muy Sénégal émergent jërëjëf waaw promotion bi su ma c'est de 94 95 à à 2000 à 99 2000 donc diggante moom mooy promotion ñu bari jaar nañ ci man ñu fa laa jaar donc euh, mu ñu bari jaar nañ fi mais ñun ñoo am idée bi mu juddoo ci Serigne Touba Thiam ñoom Lamine Diop Mame Mbaye Guèye ba tey mu toll fi ñu ngi nekk plus d'une presque vingtaine wala trentaine donc euh, muy promotion bu ñu dul fàtte di ñaan yàlla ñeneen ñi roy ci incha allah mu mu jëm kanam voilà jërëjëf.